li ñu fi indi woon mooy regroupement de chauffeur euh, bu gare routière Mbacké bii nga xamante ni bii Mame jëmb mi taxaw Diop moo ko jiite tey jii moo doon def benn leeral boo xamante ni bii bu ko neexoon sax nag naam mu toog juróomi at yi ñu ko fal doon ko leeral waaye yàlla dafa dogal nit moom bu ñemee fi mu jëm jarul muy nëbbu naan barab sàngam laa jëm béyo ba mu wax ko xam ni dara du ko dogale loolu nag moom la doon def tey si fukki weeram ak ñaar moom la doon leeral mbooloo mi. madame la meer nag defe naa ni euh, waa garage bi am na lu ñu la sas pour nga jàppale leen si mooy marodage bi nga xam ni moo ne si dëkk bi ak garage parallèle yi ne dëkk bi. loolu nag day yàqam garaas man la ànd ak garage bu baax bu fekkee dañoo tabax gaar boo xam ni si département Mbacké amul fenn boo doon wër Sénégal amul fenn gaar boobu autorités yi war nañoo taxaw sécuriser ko ba mu niiru gaar. waaye gaar bi ku fi ñëw sax bu ñu la nee gaar la doo xam gaar la wala kon gaar bu mel noonu nag su président bi dajalee tey def frais yi mu def social bi mu def ba pare teg 10 millions si taabal loolu damaa wax ni doy na ndam. yilif li ma yoon may man moom rek lay jël yilif nag dama lay yilif par force amul dama lay yilif par force amul fenn li sëñ bi wax li Alsaan wax moom lay moom ja boon naa ñëpp ndax keroog ma taale sama loxo dama ne tàllal naa sama loo kii xam ne mooy suñu mag idika moom laay njëkk a ndax loolu la ñu sant. ndax li mu wax nii loolu la ñuy digal te moom def na képp ku yor nekk ci Mbàkke tal naa ñoom Abdou Mbaye a ngi nii waa kër Idika yaa ngi ñëpp a ngi fi nekk kon gaara bi ñun waa Mbàkke département bi benn lañ te dégg nga sant na ko sant leen sama kanam yéen ñëpp ngi dégg kon suñu kilifa moom day ñëw waaye doonu luy xotti ndax ñi ñëw tey ñëpp dégg nga ne seen i tur na lii laa soxla ci transport ñoom ñi nga xam ne maam ñoo siqoon bureau bureau boo xam ne dañ koo def ci kaw waxtaanoon ko mais joxe yi ci am foofu la yooyu nag moo waroon garage mënu dem li tax garage mënu dem ndax mënoo taxaw yorob garage ba pare ay secrétaire am ci trésorier am ci lépp am ci te doo leen gis kon loolu askan wi war ngeen a xam ne loolu am lu nekk ci bi nit ki mënoo dañ laa fal pare ñi la a jàppale gisoo kenn kon soo génnee ci bit di wax ñun li ñu suñu sant mooy nga topp téye basket wi la faloon nga toog nga wan leen ne leen lii laa liggéey lii laa nekk fii laa toll loolu la ñu def li ci def nag jàll nag moom ñun liñ fas ñëpp boo boo duñ kenn xajuñ kenn fas yéene nañoo ku bëgg a ñëw liggéey ànd nañu ci liggéey di woo nag doomi Mbàkke yi te xam ni gaaras bi lu fi sooxee doomi Mbàkke la parce que mënuñoo am gaaru ceer bu mel nii ñu koy romb di dem Touba di fa jël oto te fii boo fi ñëwee ay VIP la yore ñu ngi fi ay Toyota Lux yoo xam ne c'est climatisé 3500 la ñuy fay ko fii ak te boo demee Touba 4000 ngay fay ñu ñuy romb dem Touba. ñuy woo acteurs yëpp nag di interpeller waat maire di interpeller police ak gendarmerie ñu jël seen responsabilité encadré garas bi ñu mën cee liggéey man ci def ay résultat yoo xam ni liñ bëgg ci Mbàkke danañ ko am parce que transport bu doxee commerce dox bu commerce doxee maire yi dina gis boppam ci garage parce que booba dana am ay revenus yu fi jógee jëm ci moom te garage bi tëj na pendant dix ans kon nag buñ ko ubbee muy seen ak moomeel maire ñu jox ko promoteur Fallou Mbacké kon dañ cee war a wee topp suñu ginnaaw engagement bii ñu am pour doxal garage bi maire yi ak police ak gendarmerie jàppale ñu ci loolu